Elhadj Ousseynou Ndiaye dal leen ak jàmm ci xibaar yéenekaay yi réewum Sénégal fan la jëm waaw réew moo xam ne daanaka ay gumba ñooy jiit ay njàccaar waaw nañu dem ci yéenekaay bi di Sud Quotidien di a jëli dogal yéenekaay bi di ñu xamal ne nañu leen a toroxal li leen ba ñu nooy nepp moom Aly Ngouille Ndiaye mi nga xam ne moom la ñu dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllu biir réew mi mi ngi dogal jëlab dogal de waaw léegi nag dogal ba mu jël leer nag arme koy faral di sol loolee dañu koy dindi ba mu set wecc waaw ñooñee kay jamono ji daanaka dañ leen désarmer dëgg waaw jamono ji nag ñi nga xam ne nag ñoo nekkee ci campagne électorale bi ku ci nekk di ŋàññi li nga xam ne nag moo xewoon fële ca Tambacounda ki nga xam ne nag moo di procureur nañ leen loxo ñoo ñekkee ci waa PUR la bokk am na lu toll ci tamit ñaar fukk ak juróom benn ci ay journalistes yoo xam ne jamono ji daanaka mi ngi wéy waaye ci violence dëgg la am waaw violence gu metti daal moo am ki nga xam ne nag moo di Macky Sall ma ngay wéyal campagne am nee na ñi nga xam ne ñooy faral di jëf jëf yu ni mel loolee dootuñu ko nangu waaw dootuñu nangu benn yoon nga xam ne daal ak fitna daal ñu koy andi ci réew yi nga xam ne nag moo di Moustapha gannaaw ay journaliste yoo xam ne dañu leen a tëcc ba ñu nepp amul benn jéego boo xam ne def na ko waaw maanaam seeti ñi nga xam ne ñoo di journaliste seeti tamit seen ak nekkin société civile bi ñoom nag ñaawlu bu baax li nga xam ne nag moo am campagne bi waaw jafe-jafe yi nga xam ne jot naa am ak ñi nga xam ne jot nañoo ñàkk seen bakkan dañu xam ne moo di mbir moomee mbir la moo xam ne mënoon nañ ko artu laataa ñuy egg waaw ndaxte ñoom yàgg nañu di wax lu ni mel yàgg nañu tamit xeetu firnde yooyee di ko junj waaye nag ki nga xam ne nag ñoo di nguuru Sénégal naanaam topp taaral ci lu ni mel ba jamono ji lii xew waaw lii nga xam ne daal xew na ca Tambacounda waroon naa mën a ñàkk waroon nañ koo mën a moy yéenekaay bi di Le Soleil moom nag juróomi candidat yi nga xam nga xam ne moom la ñu dënmal bu dee candidat coalition Benno Bokk Yaakaar mu di Macky Sall yéenekaay bi duñu xamal ni démb kay ma nga nekkoon fi nga xam ne nag moo di Saloum waaw jaar moo di nga nekkoon te Oussouye Idrissa Seck yu tàng ngir daal di koy lal ci ki nga xam ne moo di Macky Sall dina xam ne nag jamono ji réewum Sénégal gàcc dëgg ci lañu ñu nekk gaal gi nga xam ne moom la ñu xamoon te jamono ji ñuy jànkonteel ay jafe-jafe yu métte jaf bu dee nag Ousmane Sonko moom Sonko Sonko bi di xam a def li nga xam ne moom la diggante woon ak askanu Sénégal du lenn a ci xarit mag Mor Ba Cissé di ñu xamal ay jafe-jafe yoo xam ne moom la doon dund foofee ñëw fi nga xam ne nag moo di Touba waaye nag da doon faral di am ay crise moom moodu moodu boobee gannaaw ay garabam ba mu jeexee fii ci Touba daa di aslem mu daa takk boppam ci garab génn àdduna jamono ji nag am néewam nañ ko yóbbu ci hôpital Matlaboul Fawzeyni bu janat